kilifa kilifay réew mi saxaar gi dekkee ndakaaru jëm ci dëkk ba tëdd ba Touba bés bi le jour nee na ay technicien yu bëri nag nee nañu daal seen baat ci kaw ndax bëgg-bëggu nguurub Sénégal gi mën na am gàllankoor dëgg ci dem beeg dikk bi waaye itam mën na jël musiba gu rëy ci réew mi waaye déet waay ñoom techniciens yi yemu ca ndaxte nee nañu seen bëgg-bëgg nag bu doon attuna daal mooy bëgg-bëggu kilifa yi ñu teg lépp ci suuf lii ndaxte nee nañ daal saxaar ci daw diggante ndakaaru dem ci diggu ba tëri bu tuba daal wóorul wóorul de ndax jamonoy màggal gi tuba mooy célébré yoonu yàlla yépp la lay xam ne def nañ seen liggéey ba noppi te ginnaaw loolu la kilifa yi jël mesure bii ne saxaar si day tegu ci raaw diggante ndakaaru jëm tuba Samba Ndiaye mii directeur général des grands trains du Sénégal ne matuwaay yépp laa lay wax ni état bu Sénégal jël na ko moo xam ci ba ci personnel bi ngir dem ak dikk bi ci daal lépp xaalis na la déqee ndakaaru dem ca dëkk ba tëdd ba Touba jëwri gu ñuy dégg wàll dem beeg dikk bi ci Sénégal xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké dalal na ko ndaxte moom gu tëdd gi ca Touba nee na bëgg-bëgg kilifa yi saxaar si dikk ca Touba ci jamonoy màggal gi daal mbégte dëgg la ci àndal moom borom mbég mi fësal mbégteem ci Mansour Faye ci Aminata Mariam Faye jëwri gu ñuy dégg wàll dem beeg dikk bi ci Sénégal bés bi journée élection présidentielle ma ci 2024 gi ganu Sud FM nee na la wax ni Pastef day am bi yamu ca ndax nee nag tas nañu tasal seen parti bi esprit formation politique ba tey daal jeexoogul mu ngi fi ba tey de tey la wàllu gën ay laa lay ni ngir fësal seen bëgg-bëgg dem ci élection présidentielle 2024 yi moom docteur Diallo Diop yamu ca ndax nee na nag seen kéem kattan danañ ko def ngir élection présidentielle yi daal ginnaaw lu ñuy ruuma daal ci mi danañ koy dàq nag ñoom nee nañu dinañ ci xar ci date bi ñu ko jàpp at vox bi ne docteur Diallo Diop kay nee na Pastef day bokk ci élection yi ci ndii màcc na te même bu dee Ousmane Sonko ne nekku seen candidat dinañu am plan B laa ni ngir bokk ci élection yi daal ñu dëgmal yëgle kaay bi ne imam bu Bignona yebal na ay ndaw ngir ñu seeti Ousmane Sonko ndaxte moom El Hadj Ousmane Fansou Bodian bëgg-bëggam dëgg ak saako teefam jëm ci njiitu réew mi Macky Sall moo ñu teggi loxo Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne dañu tëjandool ñu gàttaloo gàttal gars yi topp ñu constaté casserole bi loolu tax daal mu lajj te bu weesoon Dakaaru capital bu Sénégal ba ci buntu kër Ousmane Sonko ca biñoo tamit mbir mi daal xumbul woon amul woon tamit mobilisation bi waroon am dëgg laa wax laas ne élection présidentielle yu dëgg man Anta Babacar Ngom samp na ndëndëm te dëgg na ko barki dém moo njaay ci grand théâtre ak mbooloo mu tàkk woo xam ne dikk nañu ngir fasal seen cofeel ak seen ànd ci madame Diack kon Ngom kay mooy représenté dëgg diversité force ak richesse bu nation bu Sénégal l'évidence ne jamono jooju nag Abdoulaye Dieye ma ngay xalal Thiès kaay bi ñaari gaar na ñaar fukki million ak juróom la jël ci subvention jébal ko 95 yi nekk ci Thiès kaay bi ñaari gaar ñu ne déet na waay mu may askanu Thiès ñaari bés yoo xam ne dañuy faju tey duñu fay dara la lay wax ak benn ambulance boo xam ne jébal na ko hôpital dixième bu Thiès directeur général bu AIBD kay xalif général kul murid Serigne Mountakha Mbacké dalal na ko ñaanal ko ba noppi rafetlu dëgg liggéey yoo xam ne bokk na ci juróom-ñetti fukki universitaire ak juróomi recteur ñaari téeméeri acteur politique téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaari élus locaux ñaari téeméeri juróom-ñeent fukk ak ñaari député ay kilifa diine ay kilifa aada bati kilifa ci état Sénégal ak i acteur économique ay sportif ak ay artistes ñoo bind ba taxal di tontu téeméer ak ñeent fukk ak ñaari nit yi nga xam ne ñoo bindoon pétition di sàkku ngir ñu bàyyi jiital Pastef Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ci kaso bi foo sobi na lu ëpp junni universitaire di boroom xam-xam ak i chef de parti ak i njiital bokk moomeel ñoom ñëpp ñoo bind bataaxal ne démocratie bu Sénégal daal lu waxul dërëm xuriw ko ndaxte gars yi nee nañu démocratie bu Sénégal na te léegi na taxaw tem amul tendee falte nag loolu daal day wéyandi ñoom gars yi nee nañu li tey seen xel te lëndëm ko lool mooy naka la ay boroom xam-xam nag di sàkko ci président mu bàyyi nit ku ñu tëj ci kaso bi ci jamono joo xam ne yaa ngi bàkk naan séparation des pouvoirs waxtu boobu na tribune yéen dina cee dal kaay nee na njiitu réew mi Macky Sall ak Ousmane Sonko na seen guerre bi daal saf moo mondial ndax kenn si ñoom ñaar bëgg da bàyyi fa nga jàpp di muy Macky Sall di Ousmane Sonko le ne am na jihadistes yoo xam ne ñoo ngi recruter ndaw yi nga xam ne seen bëgg-bëgg dëgg nag mooy jël mbëkk mi dem ci Barça mbaa Barça te ñoom jihadistes recruteurs yi ñu ngi diggante Sénégal Mali jàpp Gànnaar maanaam diggante Podor Matam Bakel Kanel ak Sibali le quotidien yéene kaay ne xabaar bi nag kilifay réew mi daal ñoo ko dëggal les économies géants chinois ci bi di Norinco mu ngi ci réewum wax nii bi nag fii ak lu dara dina am ab marché boo xam ne toll na ci vingt-sept milliards lii l'info ne ci ay teewaayu kilifa nekk ci gouvernement bu Sénégal ay homme d'affaires ay artistes ay sportifs ci la Elimane Lam daloo terrain synthétique bu Liberté 6 yi xam ne moo ko may askanu Liberté 6 gépp laa lay wax yëgle kay daloo nañu Liberté 6 fa mu juddoo ginnaaw terrain gi leen jagleel jël lépp may leen ko l'info ne jëfam gi moom Elimane Lam bëgg-bëggam nag mooy nar a sokkee ko stade ne jaraaf bu ndakaaru nag moo dóor stade mbuur ñaari bal ci dara ba noppi jël coupe du sénégal bi ci teewaayu amadou ba premier bu sénégal nekk itam ministre des ñu bàkku jëm ci lamb ja sunu lamb yëgle kaay bi ne jàkkaarloo Gris Bordeaux ama balde boo sàggane dañ ko nar a ba janvier 2024 yëgle kaay li ñu teg gët lépp nag waxtu wi mooy 5 novembre gi ñu jàpp ni Modou Lo ama balde mën na ci sëgg te boobu le combat nag Luc Nicolaï ko libération moo tàng jër xëpp ko aaw beeg doomam bi toll ci benn at libération ne moom mi def jëf gi di Fatou Fall nag daa bàyyi ba jamonoy ndekki nga xam ne nag aaw bii di seeni bu fay ak liram bi am benn at ñu ngay tëdd di nelaw moom Fatou Fall ñaareel bi tàng ndox bu mu tàng jër xëpp leen ko lii libération yamu ca ndax dañu ne ñaareel bi def jëf gi gendarmerie jàpp na ko te ginnaaw jàkkalam ak enquête kat yi nee na moo dox ci digganteeg jëkkëram ba waxtu wi ñoom ñaar déggoo amatul seen diggante mais da ngay seetlu